bisimila mbokk internet yi dal leen ak jàmm ñu del waat ak yéen comme ni leen ko digee woon ci mbirum Hiba Thiam bi tey jii ñuy ñëw ak yéen ci Fatima Rigal ñu gën ko xam ci turu Poupette moom mi nekk ab leader bu mag wala sax ab jaaykatu drogue jekk taaru te rafet lool moom mi lay di Poupette dëgg-dëgg méngoo na ak turam bile bokk ci àndandoor yi gën a yéeme ci Dame Amar moom Poupette la jigéen bu mat te ñor la bëri xameel ak i dugg ak i génn tey faral di bokk ci ay soirée ak i ndaje yoo xamante ne daan daanaka ay boroom doole ñoo koy amal ak i soirée Dakar by moom Poupette nag am na ñetti doom ñaar ñi ay seex yu jigéen lañ keneen ki góor la lii lee mooy firndeel ne jigéen ju mat la ñenn ñi jàpp ne nit ku baax ku yaru ku teey ak ku ñu nawloo la waaye ñeneen ñi tam ñoo ngi koy joxoñ ay baaraam ngir yam ak itam taaram bu jéggi tayow ba tax sax yenn ci jigéen yi di ko fiire ngir wan leen rek ay mën-mënam ak lijjanteem moom milee di Fatima ñu gën koo xam ci poupette ci mbirum xaalis lay liggéey ci lépp lu jëm ci wàllu xew-xew yi xew guddi lu ci mel ni ay soirée ay boîte ak discothèque fii ci mim réew ci ndakaaru njaay ci barabu ndaje yi gën a làqu ci réew mi lay faral di nekk di gérer ay business wala sax di def ay deal ci njaayum ndorog waaye liggéeyam daanaka ay borom daraja ak ñu siiw dong la koy séqal ci lu ëpp ci sutura ca barabam ya ca almadi moo ne de moom mi di lool ak ay jigéen yu bare bari fii ci réew mi nga xamante ne say su ne ñu ngi leen di dégg ci mbirum buzz maanaam di wane ay autorité yu leen topp wante moom milee bari na lool ay autorité yu topp ci ginnaawam waaye kenn du ko dégg mukk mu wax ci moo ne de ay borom alal rek ñoo ko topp li mu ñàkk nangu ànd ak góor yi ko topp kenn ci góor yi ko topp toog moom dong rek tax na ba ñu bari jàpp ne kile di poupette ab lesbienne la wax nañu sax ci ay jamono nañ ko fii ci mbir mu ni mel ba jàpp sax ne moom mi la di poupette daf doon génn ak kile di Adja jàlloo waaye ah lu ci mënti am dal wax ju ñu fore la ci wéyi béy bu ñu sukkandikoo ci seede yi nga xamante ne ay naataangoom ñoo ko def ci moom moom mi léeg li ñuy wax ci moom mooy nit ku timide la maanaam dafa noppi lool waaye nag ko am fulla la ci boppam muus ba teg ci miin liggéeyam di ko def ni mu waree xëy na looloo waral mu siiw gile siiw ba noppi mën a ànd Mali ak yenn ci Fatima ñu koo xam ci poupette